Ramen. Ramen. Quero samba grave. Ei, my boy, come down. Ramen, my grave, agora para aí. Para lá. Ramen, galma, vem. Como te vou nyamadi? xanaa nekkoo si dëkk bi bernde yi commencé wul a dal. ayi mooy kii bi ma booy jox si mbedd bi nii. noonu la demee nag mooy bernde yi grand bi. j'en ai bu j'en ai bu j'en ai bu. mais nag pare naa de te damay dem oto bu ndaw laa yor bu fekkee amoo paas rek mun naa la yóbbaale tamit ah. damay dem ba du jël njëmbat. non man du ma waaf oto bu ndaw laa yor soo paree rek wax ma. ku dem ma dem ku demul ma dem ila Touba. àndandoo ma jógandoo ma daanandoo si taalibe est-ce que yii duñu si àndandoo ba mat nga murit murit dëgg day am ñu xit fan la bamba jaar non grand da ngay xaar Touba Bassar raba lu mu xaatim ca àll ba foo nga demal la ba murit dëgg du doon na ba te la foog ni nii la yombee wiri wiri ba maa yombee yëm na Samba Laobé moo tax chef Ibra tawtee fexeel boo fa yeggee xamal luñ fay tere waaye fall yi dañuy dóoree et puis booy fàggul ma téere Gindi jikina ora be ndega da sawa ya mu di passé bay wol na sen bamba ben tourant la ni romu ga rond mala sum way bay so bi di vire ba ora bi ko bu ga sam ben ga no la ko ñaaxé bu ni wol na sen bamba pay lolu ga di bali la ñu bay te yalla rek tax bay kudul bay fal pusal bay fal mo la gën muridullah tax juk fal tuba lañu jëf tuba lañu am ah. Tuubaa lañu xam biro ba ca ndaar ku dul bamba si ñeen naa fa mu dul woon Cheikh Fall reer nu ñibbee fàtte wuñu bamba taal si karkar bu mag bee ay sunu maam borom daaro tey maam booy borom daaro bala ay sa dundal waaw waaw yow daal dem rek ku dem ma dem ku demul ma dem ilaa Tuubaa booy daal dem rek man taluma xuloo sa yi nii ci mbégte safar gi laa nekk da ngeen may dimbali ci ree gi moo gën berte yaa ngi fi yaatu na mais grand yu dof yi ay kaaw maa lañ xaw ma luñ doon ñibbi si di yor yi mel na mel dof baal leen ñu waaye ñun dañoo pare pour safar gi